ne sunu sëriñ moo to jabalta mi ngi daaru kenn la maa fi tuuti ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la kon ñu fas yéene ñëw rek ngir waajal màggalu Daarul Muxti fas yéene waxtaane borom Daarul Muxti ak koom-koom suñu waxee borom Daaru Muxti ak koom-koom nag mooy borom daaru dañu ko tàmm waxtaane ci qualité yu bari yi jikkoom yu bari yi jëfam yu bari yi ba soonee borom Daaru Muxti xel yépp dem ci le fidel ka nunguloon Sëriñ Tuuba soonee borom Daaru Muxti xel yépp dem ci jaamukatub yàlla ba doon wax ni bu kenn dugg ci sama jàkk te jàppoo boo nee borom Daarul Muxti xel yépp dem ci xam-xamam bu bari dafa bari ay fànn yu ñuy wane borom Daarul Muxti eh, dinu ko waxtaane ba ñu bari miin ko ba boo tuddee borom darul Muxti xel yi dem ci yooyu ma tudd yépp tey jii nag ñu fas yéene indi borom Daaru Muhti ak développement luy soqalim réew borom Daaru Muhti ak koom-koom réew moo gis ngir ñu suqaliku dañoo war di dunde la ñuy bay loolu mooy suqali am réew ngir loolu nag muy mbay mi nga xamante ni bii su fekkee réew mi li muy bay di ko ñoral ci lay dund autosuffisance alimentaire bi ñuy wax loolu muy suqali am réew kon ñaari secteurs yi nga xamante ni ñooy suqali am réew mooy mbay ak sàmm mbaa budul ñaar yooyu itam siiw nañu ci lool réew moo xamante ni échoué nga ci sa mbéy ak sa càmm doo mën a développé ñaari secteur yooyu nag ci li bëgg a ñëw xañ na benn secteur bi sax yàgg nañ ko waxtaane muy borom Darou Mouhty ak mbéy waaye dafa am beneen secteur bu am solo boo xamante ni moom borom Darou Mouhty foo mu ci yeggoon ba léegi gisuñu ñu ci jëfandiku ñu yegg fa te loolu mooy élevage mooy sàmm damay wax ni jamono ji ñu nekk vingt et unième siècle modernité bi ñuy wax suñu waxee élevage muy sàmm fii ci Sénégal sàmm yi lan la ñuy sàmm nag xar ak béy mooy jur gu sew gi moom boroom daarul muxti nag man nañu wax ni espèce yépp la daan sàmm sëñ Moussa Ka dafa wax ni lu jot mu def ko juggalam day gaaru baa ak i mbaam lañ daan wëtal fa daaru xaritu laa béer ak i béy ay naaga ba àddunay baax sàmm yaa ngay saaga kon espèces yooyu sëñ Moussa tudd gisatu ñu ñu di leen sàmm au niveau national fii ci Sénégal tàmbali par jugal jugal ci wolof mooy lan mooy géttug mbaam mbaam yi ñuy sëfe nga xamante ni léegi charrette mbaam yi bari nañu lool damay wax ni charrette mbaam yi soo demee ci dëkk bu mel ni tuuba ak Daaru Muxti ni taxi yi di def di di verser euh, bis bu sot ñu ni la cinq mille ngay verser wala ñu yor ci ay kër charrette mbaam yi noonu la ñu mel léegi mbaam yooyu nag boroom daarul muxti dafa amoon euh, dong yoo xamante ni sàmm ay mbaam lañu daan liggéeyee mbaam yi dañu doon bari ba dañu daan wut sàmm bu leen daan sàmm ndax booba transport la ko daan jëfandikoo dugub ji mu daan yët Serigne Touba te bokkoon na ci njëli gàmmu nga xamante ni téeméeri mbaam la ñu daan doon dañu amoon ñu leen daan toppatoo di leen sàmm loolu mooy jugal mooy géttu mbaam nag yi nga xamante ni moom laa wax ni ñu ngi koy sàmm léegi li ci borom daaru muuti yoroon kenn xamul nu mu toll am na bis téeméeri nag ak ñaar fukk la yóbbu njaareem boole ko ak ñaar fukki junni ak juróom-ñett jox ko Serigne Touba addiya kon doon na sàmm nag doon na sàmm ay mbaam waaye ay gileem moom la sëñ Moussa Ka di wax naaga gileem yi nga xamante ni moom lañuy gis senegal Mauritanie la ñuy jóge waaye moom li mu yoroon ci ay gileem dafa amoon dong yoo xamante ni sàmm ay gileem lañu daan liggéeye ñu ñëw ci xar ak béy nga xam ni mooy jur gu sew gi euh, ngir wax la lim bi ci borom daaru muuti yoroon nu mu toll jële nañ ci bàyyi sëriñ saaxo booba sax sañceguñu daarul muuti muy bi borom daaru muuti nekkee Mbàkke Kayoor entre 1909 ak 1912 euh, bàyyi sëriñ saaxo nee na am na dong yoo xamante ni bii raw ay buum lu ñu daan yeewe ay tef la ñu daan liggéeye ak ay mbote tef ak mbote mooy béy buy doog a juddu béy buy doog a juddu wala xar muy doog a juddu am na dongo yoo xamante ni du benn bis lañ koy def du une semaine loolu moo doon seen liggéey saa bu ñu xëyee ña ngay raw buum goo xamante ni un mètre un mètre cinquante lay doon ngir ñu di ko yeewe xar yu ndaw yi ñuy wax ay mbote wala béy yu ndaw yi nga xamante ni bii ñooy ay eh, tef di doog a juddu kon ñaata buum lañ daan raw par jour te buum gu ñu raw am na ab tef wala mbote muy xar mu ndaw wala béy wu ndaw wi doog a juddu wu ñu koy yeewe ngir bañ mu nàmp bay sëñ Sakho nee na am na dong yoo xamante ne ràbb ay tëgët lañu ñu daan liggéeyee tëgët génération bi xamuñu ko waaye soow mi ñuy jëfandikoo suñu masaan rat def ko ci ay këll daf daan am li ñuy wax tëgët bant lañ ko daan ràbbe ak ay xànc bu ko defee dañ koy takk ci néeg ci kaw néeg bi muy lu yaatu doon genre lal mu am ñu bàyyi ci ay tur yoo xamante ni boo jëlee tur yu mel nii nga xam ni boo jëlee euh, euh, euh, këll bi def sow mi teg ko ca day am placement nga xam ni tëgët gi au moins lu mat gis këll da nga ko ci mën a teg pour woyal sow mi am na ñoo xamante ni ràbb tëgët yooyu moo doon seen liggéey borom daaru muxti amoon na dongo yoo xamante ni bii sàmm ay banjooli lañ doon liggéey ba mooy Autriche banjooli mooy Autriche picc yu mag yooyu nga xamante ni Cheikh Abdul Xuddus wax na ni moom borom daaru muxti moo ko mas a jox Serigne Touba addiya ñu daqe ko Mbàkke Kayoor yóbbu ko njaareem amoon na kon dongo yoo xamante ni bii sàmm ay ay baa la ñu daan liggéeyee pigeon mooy xëti ngir wax la borom daru walla ñu jéem a estimer xëti yi mu yoroon nu ñu toll bàyyi sëñ saaxo nee na saa bu ñu masaan a xëy ngir euh, xontu xëti yi benn taalibeem ponkal mooy yenu ab sàmb ñukk sàmb ñukk façon saaku la boo xamante ni cent kilo lay def su yenoo saako bi day bënn coll bi daf koy trouer buy dox pepp mi di sotteeku xët yi topp ci di for nee na saa bu demee ba saako bi jeex bu wàññeekoo du gis wenn fepp fepp wu laal suuf xët yi lekk ko kon ñu jéem xalaat xët yi nan la ñu toll woon kon espèce yi ma fi tudd yépp borom daaru muuti daf ko daan produire boroom daaru muuti daf ko daan élever daf ko daan yar daf ko daan sàmm euh, loolu moo taxoon musta yónnee mukk ni dañ dem jëndal ma li ñuy wooyee ndawal sëñ Modou Maxtaar moom yaaxa for zunub Cheikh Sidi Maxtaar sëñ Cheikh Awa Balla doon na ko calculer ni boroom daaru muuti quatre-vingts ans yi mu fi am euh, ay reeram at mu jot trois cent soixante cinq mouton lay doon lam ci jublu rek mooy li ngi daan def ndawal di ko boole cere euh, autosuffisance alimentaire mooy loolu ndax wax naa la secteur bii di élevage ni mu ci meloon bu di agriculture di mbéy nañu jël dugub xam ngeen ni sëriñ bi bi muy dem ci géej gi kere bi muy tàggatoo ak borom daarul muuti ca Mbàkke Baari samedi le 10 août 1895 doonoon fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bis bi ñuy màggal Touba borom Daaru Muxti sëriñ bi bàyyiwu ko woon ay sàq waxtu ràññ lañu tàggatoo ndax mois de mars la sëriñ bi dem Mbàkke Bari avril mai mooy waxtu yu ñu war a ruuj ngir waajal tool yi juin ak juillet ñuy xaar am ceebo ngir mu taw le 10 août sëriñ bi génn nga xam ni booba ñetti fan moo tee wala ñeenti fan wax set teru waxtu ràññ ràññ mooy lan mooy bu tawee ba ñax mi sax da ngay béy ñax mi ba mu set nga door a ji loolu mooy waxtu ràññ nawet ba demewul na mu war a demee sëriñ bi bàyyi ko fa ak njaboot gi tubaab yi taxawu ko le gouverneur Moutet Euh, nit yónnee ci moom ni ne leen Cerno na tasaare taalibe yi te jóge foofu di Mbàkke Bari sinon danañu lakk kër gi ndaw li ñëw wax ko ko mu ni ko boo demee ne ko jóge fi moom dinaa ko def ndax sëñ bi waxoon na ma ni euh, foo mën a yore njaboot gi rek na nga fa dem waaye loolu mu wax nii day lakk kër gi moom xanaa day jaar ci sama jëmm sama néew ba noppi wala mu lakkaale ma ci biir kër gi doog koo def ba nawet ba jeexee mu bàyyi ko fa dem bawal bi mu ñëw Mbàkke bawal ak njabootu sëriñ bi indaale wu fa pep indaale wu fa ay sàq indaale wu fa sax ay néeg ndax nettalib Cheikh Saleh Mbàkke yàlla sunu borom yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem wax na sëtam di sëtub sëñ Modaw Balla di sëriñ Xalil moom sëriñ mu sa Absatou Jaxate ni ko sëriñ Xalil nettalee ci téere boobu mu tuddee góor yàlla gi maamam di ko tooñ ni ko yow day foo am sàq sax war nga caa mën a dëkk ndax sama am Ceerno am na bis am sàq mu dugub ja jeex moom la béris béris mooy bale ba mu set mu lal ci ay malaan ci biir jël njabootu sëriñ Tuubaa gi sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Ahmed mi nga xamante ni bii moom soxna Moominatu Bintul Xadim ñoo bokk waajur soxna Fat Sila Libaas moo waajuram dugal leen ci biir sàq bi moom nag tëdd ci bunt bi ngir luy lore lu ne bu ñëwee balay dugg ci biir sàq bi di lor njabootu sëñ bi na yem ci ci moom lu mel ni bu dee jaan ñu ñëw bëgg a matt na ko matt moom waaye bu mu dugg ci biir kon amoon na jafe-jafey dëkkuwaay am na kenn ci njabootu euh, borom daaru Muxti muy sëriñ Bassirou Anta Niang mm, Serigne Abdoul Ahad Mbacké nee na ko sun Baay Cerno de am na guddi goo xamante ni garabug dimb ci ron ak dimb la fanaan ak njabootu Serigne Touba gi ba bët set ngir ñàkk ay néeg kon waxuma la pepp mu ñu dunde waaye néeg yi ñu tëdd sax amuñu ko